la silla ñi fi teew di nuyu sëriñ Fàllu Mbàkke di nuyu sëriñ Mamadou Gueye président Touba Toscane di nuyu sëriñ Fàllu Ndiaye vice président waaye di nuyu tamit Pape ba Diam yi nga xamee ni moo feggoog man yore micro central bi ci liggéey bu am solo ak bu rafet bi muy def te fas yéene ànd ak ñun incha allahu ci tradiction bi di nuyu sama xarit sama professeur Abdallah Fahmi nga xamee ni moom du ku ñuy présenté ti ci yoon wi ndax euh, biñ ko ci xamee ba léegi Pastef rek la ci wane ak fulla waaye tamit ak bëgg Serigne tubaab bu wér boo xamee ne buy wax sax day feeñ ci kanamam kon. ñu koy jaajëfal bu baax a baax a baax di ko ñaanal yàlla yàlla may ko gudd fan ak wér-gu-yaram bàyyi ko xelam ba mu li bëgg a liggéeyal sëriñ Tuubaa yépp mu liggéeyal ko ko di nuyu euh, sëriñ Mourtada Silla di nuyu euh, Cheikh Youssouf euh, mi nga xamee ni moo nekk ñun fi toog sa tatakallamuuna al arabiya Ah, en italien xam naa kon après dam koy traduire comme na euh, ok waaw dopo aver di nuyu sëñ Mbay Géey Mbay bi nga xamee ni liggéey bi yàlla sunu sunu borom subhanahu wa ci moom la ko jaarale moom ak sëñ bëgg fàllu euh, ba tey ji ñi ci wàll si ñépp ñëw di ci jàpp te xam ni liggéey bi mooy liggéey bi ëpp solo bu ab murit di taxawu ci bitim réew loolu képp ku teew fii tey da ko war a yóbbaale bu ko yóbbaalee ñam yi fekki mu jottali leen ko xaman leen ni leen jotaay bi ëpp solo bu ab murit war a toog fekke ko jël alalam def ci jël taawam def ci mooy jotaayu ansaar ndax Sëriñ Tuubaa ba muy wax yaa ahlal barri yaa ahlal bahri ba muy wax inni uxaatibu nasara xam ngeen yéen ñii ma jàkkaarloo taxul muy wax ñi taxoon muy wax mooy ñi nga xamee ni ay nasaraan lañ bokk ci yeneeni xeet ñooñu la Sëriñ Tuubaa bëggoon a dimbali bëgg leen indi ci lislaam waaye jaarale leen ci njàngaleen njàngaleen bi nga xam ne moom lañu fi bàyyi kon jotaay bii mooy jotaay bi ëpp solo bu ñuy def ci bitim réew loolu yóbbante la te kenn ku ci nekk mission la nga jottali ko fa nga jëm kon loolu mooy ubbiteeg waxtaan wi bu ko defee ñu soogee ñëw nag ci suñu thème bi nga xamee ni moom la ñu tànn tey muy mu jëm ci euh, les mariage mixtes waaye tamit danañ waxtaan tamit ci mariage maanaam sëy de manière générale ak lislaam nu mu ko gisee te xam ngeen ni diaspora bi murit yeeg ñu dul murit ak ñëpp ñuy dund am na ay jafe-jafe yu bari bari bari yoo xam ñu ngi koy dund ci biir néegu sëy yi yooyu yëpp incha allahu bu ñu yàlla dimbalee ci waxtu wii fii waxtu incha allahu danañu jéem a leeral loolu yëpp ci lislaam waaye tamit jaar ko ci njàngaleem Serigne Touba Xaadimu Rasul dopo aver salutato E, e rinnovo anche i miei saluti a Serigne Modou Kara Silla qui presente e un nostro amico saluto, anche i rappresentanti della Daira di Toscana di cui il presidente è e, Mamadou e c'era anche il vicepresidente Serigne Fallou Ndiaye e tutti i giurin della Daira Toscana saluto anche il mio amico professore eh, che ritrovo sempre con piacere, il professor Abdallah Fahmi, e un, il nostro amico Youssef, di cui eh, mando i saluti fraterni. Eh, saluto anche Sirin Murtada Silla eh, e tutti quelli che sono presenti. Sirin Abdurrahman anche. Però oltre ai fedeli vi voglio anche dare una raccomandazione molto importante perché oggi eh, assisterete a un dibattito, a una discussione di cui dovete essere testimoni. Chiunque vada in casa deve, portare questo messaggio perché quando il nostro Venere Sheikh Ahmadou diceva in Uhatibu oppure diceva Ya Ahlal Bari, Ya non eravamo noi quelli di cui si indirizzava, parlava a quelli che non sono nati muride o quelli che abitavano negli altri estremi del Senegal. Di qui noi qui presenti abbiamo la missione di tramandare insegnamenti del Sheikh. Di qui voglio perché il lavoro che sta facendo Ansar, di qui noi portiamo e di far sì che il messaggio passa fra tutti. E stasera parleremo del tema dei matrimoni misti, del matrimonio anche nell'Islam, delle raccomandazioni che la, la Sunna ci dice e parleremo di questo tema. Bismillah. Donc, euh, je vais parler en français et comme ça, Inch'Allah, ceux qui comprennent déjà le français, et je suppose que tout le monde ici parle italien, donc je ne trouve pas que c'est important de parler le Wolof à partir du moment que tout le monde ici parle l'italien et que lui, il va traduire en italien. Et donc, comme ça, notre frère qui est là et que nous vouons vraiment un respect immense, lui aussi pourra, Inch'Allah, saisir la quintessence de nos propos, Inch'Allah. in francese perché visto che quasi tutti sono di madrelingua francese, tutti capiscono il francese? Eh, abbiamo un problema. <laughs> ah nee na nee na ay Baye Cheikh dañ fee bëri. Allora, visto che tutti capiscono l'italiano, è meglio perché noi abbiamo ospiti francesi se non ci tocca fare tre traduzioni eh, lui parla in francese e io parlo in italiano bu xawee jafe dinaa dugal wolof bu leen dal incha allah incha allah eh, fi may tàmbalee je vais entamer mes propos avec un verset du Coran mais également avec euh, un petit poème écrit par Cheikh Ahmadou Bamba. Comincerò la discussione del Corano e con una piccola poesia di Cheikh Ahmadou Bamba. le verset, c'est le verset numéro 30, verset 21. La sourate numéro 30, verset 21. Ceux qui ont l'application dans leur téléphone, ils peuvent déjà aller dans cette sourate et regardez le verset et inshallah on va l'analyser ensemble. Comincerò a recitare la surat numero 30. Già quelli che hanno l'applicazione sul telefono possono già andarci e cercheremo di ragionare sulla surat verset Surat, Pourquoi ce verset Parce que c'est le verset le plus important qui parle du mariage. Perché è il versetto più importante che parla del matrimonio. Ce verset, Allah Azza wa Jal, exalté soit-il, dit ceci. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات liqawm yatafakkaruun ce verset Allah azza wa jal nous dit parmi les signes d'Allah parmi les signes parmi les miracles d'Allah in questo versetto Allah azza wa jal si dice fra i miracoli di Allah Parmi les miracles d'Allah, le mariage. C'è il matrimonio. C'est-à-dire que le mariage fait partie des signes de Dieu. Il matrimonio fa parte dei segni di Dio. Parce que il nous dit khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Si dice khalaqa khalaqa lakum lakum min anfusikum donc vous n'avez pas besoin moi je vais faire la okay, traduction. khalaqa lakum min anfusikum azwaja ça veut dire que Allah il a il a créé à partir du premier homme qui est Adam Adam il a pris il a créé à partir de cet homme la femme c'est-à-dire son épouse cela veut dire quoi cela veut dire qu'à partir du moment qu'on se marie on doit avoir cette compréhension et cette prise de conscience en fait connaît deux éléments qui viennent se compléter et chacun tout seul est un être incomplet parce que à partir du moment qu'Adam, Ève a été créée à partir d'Adam, ce qui veut dire que c'est une partie de lui et donc ce qui veut dire qu'il y a une complémentarité entre l'homme e la femme. Il versetto ci dice che Dio ha creato Adamo e a, partir, a ci ha creato Eva, cioè vuol dire che dal momento che diventiamo sposi comincia la complementarità della persona. La persona diventa il complemento dell'altra nella, nel, nel, momento in cui siamo sposati. Chacun a besoin de l'autre. E ognuno ha bisogno dell'altro. Et c'est pour cela qu'on se marie, pour se compléter. È per questo motivo che ci sposiamo, per completarci. Pour se compléter. Et donc, dans le couple, il n'y a pas de suprématie de l'un sur l'autre. E così nella coppia non esiste la supremazia dell'uno o dell'altra. La suprématie viendra à partir du rôle que chacun va jouer. La supremazia verrà dal momento in cui ognuno farà valere il ruolo che giocherà. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, on nous dit souvent que l'homme il est au-dessus de la femme, c'est pas vrai. Perché spesso abbiamo tendenza a dire che l'uomo è sopra la donna, non è vero. Chacun a son rôle à jouer. Ognuno ha un ruolo da giocare. Et il n'y a pas de suprématie. Non esiste la supremazia. Indépendamment des rôles que chacun doit jouer. Indipendentemente dei ruoli che dobbiamo giocare. Et ça, nous devons le comprendre. E dobbiamo capire Et que quand je me marie, je dois mettre dans mon esprit qu'en fait, je cherche quelqu'un pour me compléter. Allora dobbiamo metterci la testa. quando andiamo a sposarsi andiamo a completarsi ma non a, essere sopra o sotto et c'est pour cela qu'Allah nous dit dans le même verset خلق la première condition ou le premier point le plus important dans le mariage c'est as-sukun c'est trouver la tranquillité et l'apaisement E nel versetto Allah ci dice, quando ci sposiamo, la prima condizione che dobbiamo avere è la tranquillità nella coppia. La tranquillité de l'esprit et du cœur. Quando uno va a sposarsi, va a trovare la tranquillità dello spirito e del cuore. Et si tu te maries et que tu as peur de rentrer chez toi, Parce que tu sais que dès que tu rentres à la maison, madame va commencer à râler, madame va commencer à dire des choses. Et c'est pour cela que beaucoup d'hommes préfèrent rester dans les cafés, préfèrent aller rencontrer les amis de peur de rentrer chez, lui. Quando ti sposi e, e solo a pensare che quando entri a casa trovi la tua moglie che ti bubbola oppure il marito che ti grida, la, la cosa che ti rimane è di andare a girare nei caffè. Dobbiamo avere lo spirito tranquillo di entrare a casa, di essere bene, non di avere dei timori. Et donc, c'est lui qui est marié, surtout l'homme, il ne doit pas avoir peur de rentrer chez lui. Allora l'uomo non dovrebbe avere paura di, rientrare a casa. Mais cette peur, elle vient d'où en fait Elle vient du comportement de madame à la maison. E questa paura di solito viene dal comportamento di solito della signora o del signore a casa. Et parfois c'est le contraire. Il y a et des femmes qui vi... veulent rester à la maison et elles sont heureuses tant que le mari n'est pas à la maison. A volte è anche viceversa. Quando il marito esce La moglie è contenta perché non vuole mai che ritorni. Alors, à quoi sert ce mariage Allora, cosa serve questo matrimonio? Si on a peur de se voir, de se rencontrer et même de discuter. Se abbiamo paura di vederci e di, discu di discutere anche. On a peur de parler avec l'autre, de lui dire ce qu'on ressent. Abbiamo paura di dire quello che risentiamo nel cuore. Et donc, le premier point Dans le mariage, c'est la comunicazione. Allora il primo punto nel matrimonio è e la comunicazione. La comunicazione. La comunicazione. La comunicazione. La comunicazione. La comunicazione. La comunicazione. Parce que si chacun reste dans son coin Perché e ogni, pense se ognuno, qu'il a raison e che l'autre il a tort, se ognuno resta nel suo piccolo pensando che l'altro ha torto e lui ha ragione, Et là, on peut se tromper. Ci, eh, ci inganniamo spesso. Donc il faut discuter. Allora dobbiamo discutere. Parce que si tu discutes pas avec ta femme, si ta femme ne discute pas avec toi, tu vas discuter avec qui Se non parli con la tua moglie eh, oppure se non parli con il tuo marito, parlerai con un'altra persona. Et malheureusement, il y a beaucoup d'hommes ou beaucoup de femmes qui sont vraiment gentils en dehors de la maison. e purtroppo esistono persone, sia uomini che donne, che sono molto gentili fuori da casa, ma non lo sono a casa loro. Tout le quartier dit que c'est un gentilhomme. Tutto il quartiere, i vicini dicono è una persona splendida. Mais si tu demandes à sa femme ou si demandes à ses enfants, ma se chiedi al suo marito o alla sua moglie, ils vont dire le contraire. Ti diranno il contrario. Ça, c'est pas le comportement du messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi Questo non è il messaggero del profeta Maometto sallallahu alayhi il a dit. Mhm. Il profeta sallallahu alayhi wa sallam ha detto. Khayrukum khayrukum li ana khayrukum li ahli. Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui est meilleur dans sa famille et moi je suis le meilleur dans ma famille. Il profeta sallallahu alaihi wasallam dice, il migliore fra di voi è il migliore che nella, lo è nella sua famiglia e io sono c'est très important d'être meilleur chez soi. Allora è meglio, è molto importante essere migliore a casa sua. C'est pour cela E per quello, per questo. Le prophète, le Rasul, Khadim Rasul nous dit. E per questo eh, Sheikh al-Khadim ci dice. ولا ترومي طاعة الله بلا طاعة زوجك التقي ذي Il nous il ne faut pas chercher la satisfaction d'Allah de la satisfaction de ton mari. Sheikhul Khadim ci dice non devi mai cercare la soddisfazione di Allah non attraverso il tuo marito. Et c'est vice-versa. Et vice-versa. C'est-à-dire que pour la femme, pour l'homme, il ne peut pas trouver la satisfaction d'Allah si son épouse et ses enfants ne sont pas satisfaits de lui. Vuol dire che sia per l'uomo che la donna. Et c'est pour cela que Serigne il a euh, donner un, euh, une petite, je vais dire un mot, un mot qui est très important dans le vers che j'ai pas encore cité. Eh, Serigne Touba ha detto una parola molto importante, piccolissimo ma importante che non ho ancora Parce que on vous dit toujours que la femme doit obéir à son mari. Perché ci, dice, ci dicono spesso la donna deve obbedire al suo marito. Mais est-ce que on nous a dit comment l'homme doit se comporter avec sa femme? Eh, ma non ci, sia, non, non ci hanno detto come l'uomo deve anche obbedire a, alla moglie. Parce que c'est le discours souvent que l'on entend. La eh. femme, pour avoir le paradis, il doit obéir a suo marito. È un discorso che ci dicono spesso che il paradiso moglie sta nei piedi dell'uomo. regardez cette subtilité que Ma Cheikh guardate Il a dit, il taqi zil ula. Il faut obéir à un mari qui, est, qui certaines caractéristiques. La première chose, c'est qu'il doit craindre Allah Azza wa Jal. Serigne Touba dice eh, che il faut obbedire al marito, alla moglie che risponde alle raccomandazioni di Allah subhanahu wa ta'ala. Zil Ula, c'est-à-dire qui a des qualités extraordinaires, des qualités d'un véritable mari. Cioè qualcuno che ha le qualità di un marito vero. Sinon l'islam ne sera pas juste. Se no l'islam non sarebbe giusto. Parce que souvent on interprète les versets selon euh, l'envie des hommes. Spesso interpretiamo le surre o il Corano secondo le diciamo Mm, la voglia degli uomini, dei maschi. Le vouloir des maschi. Mais le Coran n'est ni pour les hommes ni pour les femmes. Ma il Corano è universale, rappresenta tutti, sia uomini che donne. Donc c'est fondamental. Dans le même verset, nello stesso versetto, pour le deuxième point, on a parlé de la tranquillité et l'apaisement. Sul primo punto abbiamo parlato della tranquillità e dell'appesamento. Et il nous dit وجعل بينكم مودة ورحمة, cest à pour que le mariage puisse fonctionner, il faut qu'il y ait al-mawadda. c'est quoi? Quand vous posez la question al quelqu'un qui a étudié l'arabe, il va vous dire que c'est l'amour. Et sul secondo punto ci parla oltre all'appesamento, alla, alla, alla, tranquillità e all'altro punto dell'appesamento, ci, ci, parla del Amawadda. E eh, l'amour. Eh, lo chiedi a un arabo ti dice è l'amore. Ma c'est pas véritablement l'amour. Non è, eh, eh, vero, non è, chiaramente l'amore. Parce que Mawadda est beaucoup plus profond que l'amour. Amawadda è più profondo dell'amore. Parce qu'il y a beaucoup de gens Ci sono tante gente et beaucoup de femmes que j'ai écoutées anche donne che qui disent que mon mari me dit qu'il m'aime e che dicono che mio uomo la, mia moglie mi ama mais je vois pas ce qu'il fait pour me prouver qu'il m'aime ma non vedo quello che fa per provarmi l'amore parce que ce n'est pas simple de le dire perché non è così semplice dire mettiamo e basta. Mais il faut le prouver. Ma bisogna anche provarlo. Qu'est-ce que tu as fait pour prouver que tu l'aimes? Cosa hai fatto per dimostrare che lo ami? E si c'est nos hommes, surtout nos hommes sénégalais. Soprattutto i nostri uomini senegalesi. Souvent, ils ont honte de dire à leur femme je t'aime. Spesso hanno, ah, si vergognano di dire alla, alle loro mogli Si je amo. pose la question maintenant, qui a déjà dit à sa femme e je l'aime, je t'aime? Se chiedo qui chi ha, chi ha detto alla sua moglie. De lever le doigt. Io levo. Il faut pas tricher. Non, do, dire il falso. Le femme regardez si. Guardate uomini se, c'è la vostra moglie, il vostro marito se dice la verità. Vous voyez? Perché spesso si vergognano a dirlo. on a 4 5 Ah? Abbiamo quattro cinque. <laughs> abbiamo 7 su 40. Ce, côté-là 3. Vous êtes sûr <laughs> C'est un problème. È un problema questo. Il faut le dire. Lo dovete dire alle vostre mogli. Et donc le fait de le dire. Però eh, disons On le dit avec nos façons. Non, il faut le dire. Il faut le, le dire, il le faire. Lo dobbiamo dire e le dire et le faire. Lo dobbiamo dire e lo dobbiamo fare. Vous savez, euh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'on peut mentir pour trois choses. Il prophète sallallahu alayhi wa sallam diceva possiamo mentire per tre cose. On peut mentir pour combien? Combien di choses? Eh. Trois choses. Per tre cose possiamo mentire. La première chose, c'est pour sauver quelqu'un, par exemple, quelqu'un qui devait euh, il y a des gens qui le cherchent pour le tuer, par exemple, la pendant la guerre. Possiamo mentire per salvare uno dalla morte. Et que tu sais que les gens le cherchent pour le tuer. cercano qualcuno per ammazzarlo. On, te dit est-ce qu'il est là? Tu dis non, il n'est pas là, alors que tu sais qu'il est là. Se qui, ma Se lo nascondi li salvi la vita, puoi mentire. Donc c'est pour sauver une vie, on peut mentir. Men mentire per salvare una vita è, è Et si on veut réconcilier entre deux personnes Per riconciliare due persone che si hanno litigato, qui ont un conflit entre eux, che, litigano, che non si più, donc je peux aller voir Abdallah Fahmi, posso andare a vedere il professore et Abdurrahman. e Abdurrahman. Fahmi, il t'aime trop, même si je sais qu'il l'aime pas. Vado da Abdurrahman, gli, dici- gli dico Abdallah Fahmi Tiama anche se non è vero. Et je vais aller chez Al-Fahmi je lui dis Abdurrahman, il t'aime beaucoup. Faccio si je sais que c'est pas la stessa cosa da Abdallah per raccontare le cose, per farle partir que l'objectif est bon, c'est-à-dire c'est pour les réconcilier, c'est autorisé dans l'islam. Perché l'obiettivo mio è di riconciliarlo. Finché sono su questa ottica è lecito per l'Islam. le troisième point. Eh, il terzo punto. Si tu as une femme ou un mari, se hai una moglie o un marito et tu sais très bien e sai benissimo qu'il n'est pas beau che n'est pas belle, tu le sais très bien mais Tu te réveilles, tu lui dis Oh, comme tu es jolie. Oh, la mia principessa, comme, comme tu belle. es belle. Oh, oppure mio amore, come sei bello. Ou bien tu dis à ton mari Tu es le meilleur des hommes. Sei il migliore dei uomini. Même si tu sais que c'est pas vrai. Ma anche se sai che non è vero. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit Tu peux le faire. Dice che lo puoi fare. Parce qu'au moment de, au moment de, à partir du moment qu'on le dise. a partire dal momento che lo diciamo. Celui qui était pas beau, il devient beau à ses, à tes yeux. La persona che non è bello, non era bello, lo diventa nei tuoi occhi. Mais on sait qu'il n'y a pas quelqu'un qui est moche, tout le monde est beau parce que nous sommes tous des créatures Ma di Dio. sappiamo che non c'è uno brutto perché siamo tutti creatori di Dio. Et là, je vais vous raconter une anecdote. E vi racconterò una piccola storia. Il y avait un monsieur C'era un signore qui avait sa femme. Aveva la sua moglie. Et sa femme lui faisait tous les jours des compliments. E la sua moglie gli faceva ogni giorno dei complimenti. Elle lui dit tu es le plus beau des hommes. Gli diceva sei il più bello dei uomini. Tu es le plus magnifique des sei hommes. il più magnifico dei uomini. Tous les jours. Ogni giorno. Et le mari, il était content. Il marito era contentissimo. Il dit, je vais lui faire une surprise. E detto che oggi un giorno gli farò una Parce sorpresa. Parce que je suis tellement content d'elle. Perché Et la surprise c'était de l'envoyer pour faire le pèlerinage. E la sorpresa era di mandarlo a fare il pellegrinaggio. Pour la Mecque. Per andare alla Mecca. Et la femme est partie. La moglie est revenue. E è ritornata. Un mois passé. Un mese dopo. Silence radio à la plus de compliments. Eh, radio, non, faceva più complimenti. Il plus rien. Non diceva più nulla. Son mari l'appelle. La, la, la, il marito lo chiama. Il lui dit mais qu'est-ce qui se passe? E gli chiede ma cosa tu, succede? Tu me faisais beaucoup de compliments. Mi facevi tanti complimenti. Maintenant tu fais plus rien. Ma da quando sei tornata Alors niente. c'est pour ça que j'étais envoyé Io au pellegrinaggio. Io ti ho mandato come premio al pellegrinaggio per questo motivo. Sa femme lui dit tu veux avoir tu veux savoir la, la vérité. La moglie gli risponde vuoi, vuoi sapere la verità? Il lui dit Maintenant je suis devenu Hajja, je suis parti alla Mecca. adesso sono diventato Hajja e, Je ne peux plus mentir parce que tout ce que je disais c'était pas vrai. E non posso più mentire perché tornata dalla Mecca non mi posso più permettere di dire le bugie. Vous voyez? Eh donc euh, c'est très important. Guardate com'è si on part au pèlerinage, on revient, on doit continuer à faire des compliments parce que andiamo anche alla Mecca che torniamo, diventiamo Agia con i nostri coniugi, è importante gonfiare e raccontare anche quello che non esiste per far vivere il matrimonio. Parce que avec la bonne parole e con le buone parole bon comportement e il buon comportamento même si on n'a pas les moyens même si on n'a pas les moyens anche se non abbiamo mezzi on n'a pas d'argent à la maison non abbiamo soldi on peut vivre possiamo vivere dans les meilleures conditions. in Parce que la vie perché la vita ne se résume pas non si resume solo au matériel, eh, al materiale, à l'argent, ai, soldi, aux immeubles, e a, a, alle case, belle voiture, le belle un compte banque rempli. Il conto corrente riempito di soldi. Ma se il buon comportamento e l'amore. Ma il buon comportamento e l'amore possono riempire. E, e c'est e- ça qui fait perdere un mariage. E, e questo può far durare un matrimonio. Et c'est pour cela que le, le Coran dit. E per questo il Corano dice. وجعل بينكم مودة ورحمة ورحمة, c'est-à-dire la miséricorde, la compassion. La, il Corano parla della compassione, ar-Rahma, la parola. Pourquoi le Coran parle de Rahma Pourquoi e, e perché il Corano usa queste parole, ar-Rahma, sul matrimonio? Parce que, au début, le début du mariage, perché l'inizio del matrimonio. On est jeune. Siamo giovani. On s'aime. Ci amiamo. Mais après 50 ans ou Ma 40 do, ans de dopo mariage, 50 anni di matrimonio, l'envie, la, la voglia diminue. eh, cala. E s'il n'y a pas de rahma, E se n'y a pas de compassion, se la s'il n'y a pas de ce qu'on appelle en Wolof coloré, se non la, la, la, la, parola, diciamo, la, la, non so come dirlo, il faut <laughs> La pazienza, non è pazienza collere. La pietà, la pietà. Ben, après, vous allez vous débrouiller. La riconoscenza. Hein? Hmm? La reconnaissance. reconnaissance. Voilà. La riconoscenza, sorte de reconnaissance. Scusatemi. Che vous regardez votre parcours. Che guard, eh, guardate il vostro percorso. Parce que c'est arrivé à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Perché è arrivato anche all'epoca del Une profeta. Une femme qui s'appelle Khawla bint Sa'laba. Una donna che si chiamava Khawla bint Sa'la. Cette femme. Questa donna. avait un mari. Aveva un, un, un marito. Et son mari a vécu avec elle. E il suo marito ha vissuto con lei. Ils ont vécu longtemps. Hanno vissuto molto lontano. Elle tanto, était toute jeune lorsqu'elle s'est mariée. Elle était era, toute jeune. Era piccolissima quando lo prendeva Et suo quand marito. elle a atteint un certain âge. Quando è, è, è diventata più matura, grande. Son mari la divorce. E il suo marito l'ha ripudiata. E lui dit tu es comme ma mère maintenant, je, e je prie gli ha, toi. Gli ha detto sei come la mia moglie, eh, la, mia, la mia mamma. E cette femme a trouvé que c'était injuste. E questa donna ha trovato che questa era un'ingiustizia. Elle est partie chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. È andata dal profeta sallallahu alayhi wa sallam. Et elle dit au prophète sallallahu alayhi wa e sallam. E questa donna dice al profeta sallallahu alayhi wa sallam. Mon mari m'a épousée. mio marito mi ha, mi ha sposato. Alors que j'étais jeune. Quando ero giovane. Et j'avais toutes les qualités. Avevo tutte le qualità del mondo. Avec toutes les beautés possibles. Tutte le, eh, le bellezze del mondo. Maintenant. Adesso. Ma beauté, elle est partie. Et la mia bellezza se n'è andata. Toutes mes qualités physiques sont parties. Le mie qualità fisiche se ne sono là, andate. Il m'a jeté. E mi ha mollato. Est-ce que c'est juste? È, è, è giusto quello che ha fatto il mio marito? Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit ce que je sais pour l'instant c'est que tu es divorcé. E quello che so adesso sei divorziata. Parce que le Coran n'est pas encore descendu pour régler sa, son problème. Perché il Corano non è disceso per risolvere il tuo problema. Donc elle est partie, elle part, elle revient, elle part, elle revient chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La donna è partì, ritornò, partì, ritornò, partì, ritornò dal profeta sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah azza wa jal et Allah subhanahu wa ta'ala a entendu a, a, a, a ascoltato le cri, eh, la grida, il et, grido, et les plaintes, e, e il rimpianto, e l'injustice e l'ingiustizia subita par cette femme subito da questa donna et le Coran est descendu e il Corano è sceso il dit e dice قد سمع الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما Allah dit j'ai entendu une femme Allah dice, Vous imaginez ho, ho ascoltato una donna. Que Allah, là où il est, il entend le cri d'une femme qui se plaint. Dove c'è che riesce ad Allah a sentire le grida di una donna che, eh, eh che, che, che, che mm, une femme qui se plaint. Che, che si lamenta. Ce qui veut dire, ce qui veut dire, vuol dire che l'ingiustizia Eh, vuol dire che l'ingiustizia che ça vient du côté de monsieur ou de madame eh, che viene dalla, dal signore o dalla signora est rejetée par Allah Azza e da Allah Subhanahu wa Ta'ala un autre point important un altro punto molto importante c'est que le verset è e che il versetto Sourate 30 verset 21 Allah nous dit Allah ci dice juste à la fin du verset quasi alla fine del versetto inna fi dhalika la ayatin li qawmin yatafakkarun ce qui veut que pour se marier il faut vraiment réfléchir faut vraiment réfléchir parce que le mariage c'est pas un jeu c'est pas quelque chose qu'on fait pour un jour deux ou une semaine et puis c'est fini Non, le mariage c'est pour toujours. Allah ci dice nel versetto, prima di sposarsi e dobbiamo riflettere molto. Riflettere perché il matrimonio non è un gioco. Uno non può sposarsi oggi e domani divorziare. Il matrimonio est sacro. Prima di farlo bisogna riflettere. Et e le, pays qui a plus compris ce verset. Et il paese che ha più compreso questo versetto. C'est la Malaisie. et la Malesia. Malaisie avant de se marier. In Malesia, prima di sposarsi. Il faut faire passer, il faut faire une formation sur le mariage. dovete fare una formazione sul matrimonio. E se tu riesci pas, tu te maries pas. E se non passi a questo test, non puoi sposarti. Ma je suis sûr que si je teste beaucoup d'ici. Sono sicuro che se faccio il test a tanti di mariage, voi sul matrimonio. Peut-être ils vont pas réussir. Forse non, non, non passeranno questo Parce test. Parce même pas c'est quoi le mariage. Perché non sanno nemmeno cos'è il matrimonio. Le mariage, Allah nous dit inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Allah ci dice del matrimonio. Donc il faut réfléchir sur le projet. Che dobbiamo riflettere sul progetto Parce del matrimonio. Parce que c'est un projet pour la vie. È un progetto per tutta la vita. Et c'est pour cela. E per questo motivo. Oh? Khadim Rasoul nous dit. Khadim Rasoul ci, ci dice. Alayka bis-sabri wa taqwa rabbaki fi sirri wal jahri fayaghfir laki. Il nous dit si tu veux que ton mariage puisse réussir, Cheikh Ahmadou Bamba ci dice se vuoi che il tuo matrimonio sia un successo, il faut la patience. Devi avere la pazienza. Il faut beaucoup de patience. Ci vuole tanto pazienza. C'est pas parce che c'est difficile, ciao. Non, non è perché è difficile, arrivederci. No, il faut résister. No, dobbiamo resistere. Il faut patienter. Dobbiamo avere pazienza. Il faut beaucoup d'endurance. Mm, dobbiamo avere tanto di anduranza. Parce que perché, seuls les patients perché solo quelli che hanno la pazienza. Que Allah a réservé. Che Allah ha riservato. Une récompense. Una ricompensa. Infinie. Infinito. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. C'est-à-dire si tu patientes, Allah il dit je vais te récompenser de manière infinie. Allah Azawajal si dice se siete sarete pazienze, pazienti. eh, vi darò una récompense infinita. Et il nous dit également E ci dice anche Bisabri wa taqwa rabbaki. C'est-à-dire, il faut aussi craindre Allah Azza wa Jal. Ci dice sempre di avere timore in Allah. Mais c'est quoi la crainte d'Allah Azza wa Jal? Cos'è eh, avere timore di Allah? Lan mooy ragal Yàlla. Cosa vuol dire avere timore in Allah? ci biir sëy bi da war a ragal yàlla. E eh, come avere timore nel matrimonio in Allah? C'est quoi? Cos'è? Pour expliquer cela. Per spiegare questo. Il y a Omar ibn al-Khattab. Dobbiamo riferirci a Omar ibn al-Khattab. Che Allah l'agrée. Che Allah lo satisfa. Un jour. Un giorno. Il a demandé à Ka'b al-Ahbar. ha chiesto a una persona, il lui dit c'est quoi la crainte de Dieu gli chiede cos'è il timore verso Allah, C'est quoi la crainte cos'è il timore. Il lui dit est-ce que tu as déjà marché sur un chemin où il y a des épines Hai già camminato in una strada dove ci sono le spine, Est-ce que mës ngaa jaar ci yoon wu am ay dëkk hai già, sei già passato in una strada dove ci sono le spine. Omar dit oui bien sûr j'ai déjà marché sur un chemin pareil Omar lui répondait ovviamente l'ho fatto il lui dit qu'as-tu fait ya Omar comment tu t'es comporté au moment où tu marchais sur les épi e, sur un chemin parsemé d'épines e, e ha chiesto a Omar ma come hai fatto a camminare a passare su una strada piena di spine il lui dit shammartu wa hazzartu qui signifie j'ai tiré mes habits vers le haut pour que mes habits ne soient ne touchent pas les épines pour que je puisse marcher e voir correctement où je mets mes pieds. Omar gli ha detto ho, ho i miei vestiti per far sì che i miei vestiti non toccano le spine, ma per poter anche vedere la strada e evitare le spine. Et je mets mes pieds, je fais attention pour ne pas marcher sur des épines. E faccio attenzione per non mettere Il pierde son aspina. Et Ka'b al-Ahbar lui dit, c'est ça la crainte de Dieu. E Ka'b al-Ahbar lui rispondit, e questo eh, avere, e questo la, il timore verso Allah. Donc quand on est dans le couple, e allora quando siamo nella coppia, comme on fait attention avec nos pieds pour ne pas marcher sur les épines, come facciamo, a, come siamo attenti a non toccare camminare sulle spine. Et c'est comme ça qu'on doit faire, on doit avoir la même att euh, attention Dobbiamo avere così la stessa attenzione nella pour, coppia. Pour ne pas causer du tort à per non conjoint. causare torto al prossimo nel matrimonio. C'est ça la crainte d'Allah Azza Questo è il timore verso Tant Allah. Tant que tu fais pas attention à ne pas léser l'autre. Finché non fai attenzione per non ledere il prossimo. tu n'es pas encore dans la logique du mariage. Non sei nella logica del matrimonio. Et le mariage également. Il matrimonio anche. Comme nous, surtout dans notre culture sénégalaise. Spesso noi, come noi nella nostra cultura senegalese. On pense. Pensiamo. Que c'est l'homme qui doit aller travailler et que c'est la femme qui doit cuisiner à la Spesso maison. Spesso abbiamo quel ragionamento di cui si dice è che deve andare a lavorare e la donna va, rimane a casa a cucinare. C'est très bien si vous vous êtes mis d'accord. Bene, se vi siete messi d'accordo. Que madame reste à la maison pour éduquer les enfants, pour préparer à manger. Si vous êtes d'accord, vous êtes contente, il n'y a pas de problème. Se siete d'accordo che la signora rimane a casa, cucina, educa i bimbi, se siete d'accordo D'accordo, va bene. Mais ce n'est pas une obbligation. Ma Là, les hommes vont se fâcher contre moi tout à eh, l'heure. Gli uomini sarà, non saranno contenti. Parce que le fait de laver les habits. Perché il fatto di lavare i vestiti. per il, tuo Il fatto di cucinare il cebugen per il marito. C'est pas une Si tu veux, tu la fais pas. Se vuoi, puoi non farlo. Il n'y a pas un texte dans l'islam. Non c'è un testo nell'Islam qui dit che dice che, che la femme che la donna doit cuisiner pour son mari, deve cucinare per il suo qui uomo, doit laver ses habits, che gli deve lavare i vestiti, qui doit aller au marché che pour deve euh, andare nel, nel, mercato per fare la spesa. L'Islam non ha mai detto questo. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa faisait tout ça pour sa femme. Lui faceva tutto quello per le, le, Donc dans le couple. Allora nella coppia. C'est la complémentarité. E, e allora la complementarità. C'est l'entraide. E c'è la, l'aiuto viceversa. C'est une entreprise. È un, un'impresa. Donc chacun ognuno di noi doit jouer son rôle deve giocare il ruolo et pour gérer la maison per gestire la casa dans l'entente nell'intesa et dans la compréhension. E nella comprensione. Un compagnon a dit Un compagno ha detto Nous avons entendu Abbiamo sentito Nous avons entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Abbiamo sentito il messaggero di Allah sallallahu alayhi wa sallam. Inna rajula إن الرجل إذا سقى امرأته من الماء أجر Il a entendu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si un homme sert sa femme de l'eau, lui donne de l'eau à boire, il sera récompensé. Eh, il compagno ha sentito il profeta sallallahu alayhi wa sallam dire, se un uomo eh, serve a bere la sua moglie, sarà ricompensato. Ce qui veut dire quoi Quello vuol dire che Ce qui veut dire que comme toi tu sers à ton mari, c'est comme ça que ton mari doit te servir aussi. è come la donna deve servire, offrire da bere alla moglie, anche l'uomo deve fare la stessa cosa. Parce que si on s'aime, Perché se ci amiamo veramente, il n'y a pas de chef. non c'è il Il- supremo fra il- nella Il n'y a coppia, pas de chef. non c'è il capo, Il y a l'amour. C'è solo l'amore. Il y a la compréhension. La comprensione. Il y a la compassion. E la compassione. Et la tolérance. Et la tolérance. Et c'est ça le mariage. E questo è il matrimonio. Et ce monsieur-là, lorsqu'il a entendu ça. E questo signore quando ha ascoltato, ha il sentito questo. Il est parti questo. chez lui. È ritornato a casa sua. Et il a trouvé sa femme. E ha trovato la sua moglie. Et il lui sert à boire. Et subito gli ha dato da bere. Parce qu'il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ça. Perché ha sentito il profeta sallallahu alaihi wasallam dire queste parole. Donc c'est très important. Allora è molto importante. E un'altra chose, un'altra chose importante. C'est que dans les couples. E les couples. E nelle coppie. Il ne faut pas. Il Non dobbiamo. Si on veut que le mariage continue. Se vogliamo che il matrimonio dura. Parce qu'il y a beaucoup de couples qui malheureusement deux ans, trois ans, quatre ans, c'est fini. Perché ci sono tante coppie dove dopo due, tre anni il matrimonio Et généralement eh, la finisce. cause e la causa surtout dans nos familles sénégalaises et italiennes. e soprattutto nelle coppie italo-senegalese Parce que c'est toute la famille qui se marie. perché è tutta la famiglia che Moi si je ne me marie pas avec ma femme e je me marie avec toute la famiglia. Non mi sposo solo con la mia moglie, lo sapete voi italiani, i suoceri, fratelli, sorelle, tutti sono nella, nel matrimonio. C'est une très bonne chose. È una bella cosa. Mais le problème vient d'où? Ma il problema viene d'altra parte. quand il y a des problèmes quando ci sono problemi et que tu rapportes ces problèmes-là à ta maman ou à ton e père e quando porti il problema a casa fra mamme e e fratelli ça c'est le point numéro un. è il problema numero uno le point numéro un. il punto uno pour détruire le mariage per distruggere un matrimonio c'est de raconter e raccontare quello che succede ce que ton mari te fait quello che ti fa il tuo marito ou ce que ta femme fait la tua moglie si ta femme ne cuisine pas bien se la tua moglie non cucina bene tu dis ça à ta maman lo vai a raccontare nella tua ta maman qu'est-ce qu'elle va dire la, la mamma dirà elle sait même pas cuisiner il faut l'abandonner e dici que la maman veut voir son fils heureux perché le mamme vogliono sempre vedere figli felici mais Elle, elle n'est pas mariée avec ta maman, ma, elle est mariée avec toi. Ma la mamma non è sposata con te. Et c'est pour cela. E per questo motivo. Il faut raconter. Dobbiamo raccontare. Seulement les bonnes choses à la solo famille. le belle cose che viviamo. Mais les mauvaises choses. Le, le cose dure. Les, discu- les disputes. E, i, i, i discu- le discussioni. Les querelles familiali. E, I litigi familiari. Les problèmes internes. I problemi interni. Il faut jamais raconter. Non, non lo dobbiamo mai raccontare. Ni a ta maman. Né alla mamma. Ni à ton père. Né al nostro padre. Ni à ton Né al fratello. Ni personne de la famille. Ma nessuno della chercher dobbiamo cercare un médiateur, un mediatore all'esterno della, della famiglia. Mais s'il s'agit des bonnes choses, e se, si tratta di belle cose, allora diciamola alla famiglia. E c'est comme ça. È così. Che tutta la famiglia, che tutta la famiglia va e, eh, il tuo marito o la moglie. de ta femme également. E anche la, la famiglia della tua moglie. Ameranno la vostra moglie. Un autre problème. Un altro problema. Surtout pour nos sœurs qui sont là, qui sont italiennes. E soprattutto per le nostre sorelle Il y a italiane. beaucoup d'échecs dans les Ci mariages. sono molti, diciamo, mh, mm, ehm, eh, ma- ma- loro Vous savez c'est quoi Sa- sapete ce que vous pouvez me dire c'est quoi Eh, Potete dirmi cos'è? Le plus grand échec chez les femmes italiennes qui sono mariées avec les Il più Senegalais. grande fallimento dei matrimoni misti con i senegalesi, Est-ce que vous savez ou pas lo sapete? Non. No, nessuno. Moi, je vais di- vous le dire. Ve lo dirò. C'est de raconter son passé à son mari. È e di raccontare il tuo passato al suo marito. Il faut jamais faire ça. Non dovete mai farlo. Même si tu l'aimes trop. Anche se lo ami. Il faut jamais lui racconter non, ton passé. Non devi mai raccontarlo il tuo passato. Parce qu'après. Perché dopo. Il va te critiquer sur ton passé. E ti criticherà per il tuo passato. Il va connaître ton passé. E, e conoscerà il tuo passato. Et tout ce que tu feras. E tutto quello che sa, il saprai. Il va te juger. E ti ti giudicherà. Selon ce passé-là. E con il tuo passato. C'est pour ça que c'est une grande faute. È, è, una, è, una, è, è, è, una, è uno sbaglio. Qu'il faut pas raconter non son passé. Non devi mai raccontare il, il tuo passato. Il te prend comme tu es. Ti deve prendere come sei. S'il t'aime réellement, il te prend comme tu es. Se ti ama veramente ti prenderà. Chacun de nous a un passé. Ognuno di noi ha un passato. Et qu'on n'aimerait pas raconter. E che non amiamo raccontare. Mais la mentalité occidentale. Ma nella mentalità occidentale. Pour être sincère avec mon mari. Per essere sincero con il mio marito. dire tout. E gli c'est à ce moment-là. E in questo momento. Tu as fichu tout en e l'air. Che hai buttato tutto in aria. Sans le savoir. Senza saperlo. Ça ne fait partie de la sincérité. Non fa parte della sincerità. De raconter son passé. Raccontare il suo passato. De raconter son passé. Raccontare il suo passato non fa parte della sincerità. A son mari. E, e, e, eh, al suo marito. Un point encore très important. Un altro punto importante. C'est le fait. È il fatto. De ne pas mentir. E di non mentire. Je ne parle pas du mensonge de tout à l'heure. Non, non parlavo del mensogno, delle menzogne de, di prima. Che ti di a tuo marito qu'il était beau ou che, che tuo marito dici al tuo marito o al tuo, alla tua moglie per fargli piacere. Mais de lui dire des choses qui ne sont pas vraies. Eh, ma di dirle delle cose che non sono vere. Pourquoi? Perché? parce que ça détruit la confiance. Perché distrugge la fiducia. Parce qu'à partir du moment dans un couple il y a le mensonge. Perché quando comincia a esserci eh, le menzogne. Vous devez savoir que ce couple-là il va pas aller loin. E dobbiamo sapere che questa coppia non andrà lontano. Et il ne faut pas être orgueilleux. E non dobbiamo avere l'orgoglio. L'orgueil. L'orgoglio. Et ça c'est Cheikh Al Khadim qui le dit. Et جاء الشيخ الخديم الشيخ الخديم كديش Il dit فاعلمي لا ينجو أحد من عذاب الله حتى يترك أربعة أشياء. Il dit il n'y a personne sera épargné de l'enfer du jour du jugement dernier si il s'adonne à ces quatre choses-là. Cheikhul Khadim ci dice che non sarà salvo dell'inferno se non riesce a, a levarsi queste quattro cose. Le premier, c'est le mensonge. Il primo è, le menzogne. Le deuxième, c'est l'orgueil. Il secondo è l'orgoglio. Chacun se sent qu'il est supérieur à l'autre. Ognuno pensa di essere all'altro. Et c'est pour cela, E per questo motivo une femme qui, qui la femme de- d'un homme qui s'appelle Rayah al-Qais. una donna che era la moglie di Raya Rayah al-Qaysi al-Abida. Elle dit, elle dit une phrase très importante. E dice una frase molto importante. Il dit j'ai épousé un homme. Dice che ho sposato un uomo. ولم أرني تزوجت جبارا عنيدا. Il dit l'homme que j'ai épousé, j'ai ressenti, je vois en lui que c'est pas quelqu'un qui est têtu. Parce que le fait d'être tutu pour un homme dans un couple, ça détruit tout. Dice Parce que tu penses que tu as toujours raison et qu'elle, elle a tort. Dice che l'uomo che è sposato ha una qualità, non è, un test, un, un, non è testardo. Perché quando qualcuno è testardo diventa difficile da ragionare. Et il n'était pas orgueilleux. E non era orgoglioso. Le troisième point. Il terzo punto. C'est l'avarice. E non è un genovese. Scusate. Quelqu'un qui eh, n'est kunai. Avaro. Quand l'homme est avaro. Quando l'uomo è avaro. C'est pas bon. E tirchio non va bene. Mais là, je vous rassure, les mourides sont Mashallah. E vi rassicuro che i Burit non sono turchi. Ils sont généreux. Sono molto generosi. Et ça c'est très important. E questo è molto importante. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. All'epoca del profeta sallallahu alayhi wa sallam. La femme de Abu Sufyan. La moglie di Abu Sufyan. Qui s'appelle Hind bint Utba. Che si chiamava Hind bint Utban. Elle trouvait que son mari était radin comme pas possible. E, e diceva che suo marito era talmente tirchio per, per, peggio dei genovesi. E che il lui donnait pas assez pour elle et pour ses enfants. Non gli dava mai abbastanza per lei e i suoi figli. E che elle est partie dire ça au prophète sallallahu alayhi wa e, e sallam. È andata a raccontarlo al profeta sallallahu alayhi wa sallam. E le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit. E il profeta gli rispondi. Tu peux prendre tu peux prendre son argent li puoi, li puoi prendere i suoi soldi mais pas trop ma non tanto non, seulement ce dont tu as besoin eh, quello che, di cui hai bisogno et, et alors que lui il n'est pas au courant eh, senza che lui sia a conoscenza cioè andare nelle sue tasche e prendere soldi senza che perché non glielo dava abbastanza C'est très important. Allora è molto importante Qu'il non essere Qu'il qu y ait de la générosité. Che sia fra la coppia la generosità. Et la générosité dans la poche. E la generosità nella tasca. Et la générosité dans les sentiments. E la generosità nei sentimenti. Parce qu'il y en a qui sont radins dans les sentiments. Perché ci sono tanti uomini che sono tirchi nei sentimenti. Et c'est pour cela. E per questo motivo. Lorsqu'on aime. Quando amiamo, il faut dire qu'on aime. dobbiamo dire, lasciar aprire il suo cuore e dire quello che sentiamo. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un giorno il profeta sallallahu alayhi wa sallam, il était assis avec un homme. Era seduto con un uomo. Et il a vu. E ha visto. Non, il a entendu. Ah, no, ha, ha, ha, ha, ha sentito. de cet homme qui est juste à côté de lui. Di questo uomo che era accanto a lui. Il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chi dice, chi diceva al profeta sallallahu alaihi wasallam tu vois cet homme qui passe là vedi quest'uomo che passa je l'aime lo amo le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit il prophète sallallahu alayhi wa sallam lui, est-ce que, lui risponde est-ce que tu lui as déjà dit que tu l'aimais est-ce, eh, eh, eh, gli hai già detto che lo amavi Il lui dit non, je ne l'ai jamais fait. Lui rispose no, non l'ho mai fatto. Il lui dit lève-toi maintenant et allez-y. Et il profeta sallallahu alaihi wasallam gli ha detto alzati e di, diglielo subito. E ça c'est simplement entre des hommes. E questo era semplicemente fra uomini. Donc à plus forte raison. Allora a più forte ragione Avec fra un uomo e la sua moglie. Avec la o, personne. O con la persona che ami. Che tu as choisi. Che hai scelto. Pour la vie. Per, tutta la vita. Donc Serigne Touba Allora Cheikh Ahmadou Bamba ci dice. La quatrième cause. La, quarta causa. Qui détruit tout. Che distrugge tutto. C'est su'udhan. Su'udhan. Sì. Si. Sous-zan. Sous-zan, cosa vuol dire? sous la mauvaise opinion. Euh, ou bien le fait d'avoir des, oui, des, des suspicions e des mauvaises opinions sur l'autre. Allora è il presentimento, no, avere il presentimento un altro, C'est-à-dire tu lui fais pas confiance. Non, fai dai mai fiducia alla mais, tua moglie mais, o al Mais parfois la femme ha raison di non pas faire confiance. Ma spesso la donna ha anche ragione a non avere fiducia all'uomo. Perché l'uomo non laisse jamais son téléphone dans le salon. Perché l'uomo non lascia mai il telefono nel salotto. E che sa femme ne connaît même pas le code. Ci mette sempre un codice che la moglie non può e aprire. Che il telefono il è toujours dans sa poche. Spesso ci mette anche l'impronta digitale e lo lascia nelle sue tasche. Il telefono ne traîne jamais à la maison. Il telefono non lo lascia mai a casa. Ça, perché? Un perché c'è un problema. C'est un problème. Un problème. Parce que s'il n'y a pas de confiance. Se non c'è la fiducia Normalmente no. doit avoir le code. Normalmente la moglie deve avere il codice per aprire il telefono. Mais ça ne veut pas dire non plus. Mais non vuol dire anche. Che, che chaque fois tu dois aller regarder sur son eh, téléphone. Che devi andare sempre a controllare anche il telefono. Parce que ça c'est de l'espionnage. Perché questo è spionaggio. Et l'islam n'aime pas ça. E l'islam non ama l'espionaggio. Et donc chacun doit faire en sorte. Ognuno deve fare in sorta che. Che che Personne ne doute pas che de l'autre. nessuno deve dubitare dell'altro. Parce que si on est transparent perché se siamo trasparenti et que tout est clair, e tutto è chiaro il n'y aura pas de problème. non ci sarà mai problemi. Mais si tu caches tout, Ma se cominci a nascondere delle cose, que tu joues le cache-cache, se cominci a fare il nascondino, il y aura échec certain. allora potrebbe esserci un fallimento. Il faut toujours avoir devi sempre ci devi sempre avere la confiance la fiducia e une bonne opinion e una buona opinione et que ça doit être vice versa e deve essere viceversa vous savez un jour e un giorno le prophète sallallahu alayhi wa sallam il profeta sallallahu alayhi wa sallam est sorti la nuit è uscito la notte après il maghreb isha il est sorti après il maghreb e l'isha è uscito fuori et puis et il est revenu e dopo è tornato Et il trouve sa femme Aïcha radiallahu anha. E trova la sua moglie Aïcha radiallahu anha. Elle Che faceva qualche piccole cose. Parce que le fait que son mari est sorti la nuit. Perché il fatto che il marito era uscito di notte. Et le mari c'est pas Mbaye Gay c'est pas. Eh, il marito non è pas Bemba, non è, non è Mbaye Gay C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il profeta sallallahu alayhi wa sallam. Elle était jalouse. E, e cominciava le scene di gelosia. Comme pas possible. Come non possibile. Et lorsque le prophète est revenu, e quando il profeta è tornato, il trouve che Aisha était jalouse. E ha trovato delle scene di gelosia da parte di Aisha. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit Pourquoi tu es désagréable Ma comme ça Je te parle, tu m'entends pas, et tu ne peux pas m'écouter. Sto parlando e non mi ascolti. Tu fais tomber tout à la e, maison, e tu fai fais cascare tutto a casa. Et là, le prophète lui dit Est-ce que tu es jalouse E gli ha chiesto Ma sei mica gelosa? Parce que je suis seulement sorti la Perché nuit. Perché sono solo uscito di sera. E vi dit pourquoi je ne serai pas jaloux, e gli, jalouse de toi. Gli rispose, ma perché non dovrei essere geloso, Une geloso femme comme moi te? qui épouse un homme comme toi. Una donna come me che sposa una, un uomo come te. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui rispose Est-ce que ton Satan est revenu en toi e, e, e, Est-ce che se Satan è sì dalla dicalat? Ma è, è, è, è stornato il tuo Satano da te Aïcha lui dit, est-ce que j'ai un Satan alors à moi E Aïcha lui rispose, ho un Satano a me? Et le prophète lui dit, oui, tu as un Satan en toi. E, e il prophète sallallahu alayhi wa sallam lui rispose, sì, hai un Satano in te. Et lui dit, est-ce que c'est tout le monde donc qui ont un Satan alors? C'est pas que moi tout seul. Gli chiesi, ma eh, tutti hanno un Satano in loro. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit bien sûr, tout le monde a un Satan. E il profeta sallallahu alayhi wa sallam gli, gli risponde sì, tutti hanno un Satano in loro. E Aisha dit au prophète est-ce que toi tu as un Satan? e chiese la stessa cosa al profeta sallallahu alayhi wa sallam. Hai dentro te Satana? Le prophète sallallahu dit bien sûr, j'ai un Satan en moi. Ovviamente lui rispose di sì. Oh, Ho anche Satano in me. Mais Dieu m'a aidé. Ma Dio mi ha aiutato. Et que mon Satan, il est devenu musulman. E mio Satano è diventato musulmano. Et que ne me demande de faire de ce que ce qui est bien. E mi, mi, mi chiede di fare solo quello che viene ordinato da Dio. Ce qui veut dire quello che vuol dire che le bêtises qui e qu'on fait le cavolate che facciamo ça vient de Satan vengono da Satana qui est avec nous che è in noi et qui vit avec nous che vive con noi et parfois e spesso il nous rend jaloux e ci, re, ci rende geloso geloso e c'est pour cela e per questo du début jusqu'à la fin dall'inizio fino alla fine ce qu'il faut retenir quello che dobbiamo ritenere c'est la confiance è la fiducia l'amore l'amore et lah communication. et la communication. E barakallahu fiikum. barakallahu ah, eh, nag ci traduction bi xaw ma ndax leer na. leer nañ ndax.